Euh, boo leen gisee tey ñu seet si ko bu lutte simple dafa amoon euh, mu dem final daan ki nga xamante ni mooy caaka fay mais nag làmb lu bëri da cee am lu bëri da cee xew tey nag ñu woo ko waxtaanee woo ci laal quelque points bàyyi ko mu développé xam naa ne sonn na ndax fi mu toll nii maa ko yee di ko bàyyi mu nuyoo ñu wéyal waxtaan bi général nuyu naa la. fay naa la ginnaaw bañ sant yàlla jëli ci yeneen bi Ousin di gërëm suñu ñaari waajur di nuyu suñu sëriñ. di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ah di nuyu waa Malika yëmbal benn baraag waa Buun waa Kër Massar waa Alba Ñaax waa Kër si cité Pilitasan ah. di nuyu suma xarit Pape Matar di ko ñaanal jàmm di ko jaale seen frère bi fi wàññeeku woon fan ah, ci manifestation yi di ko ñaanal yàlla na xaare yàlla suñ suñu borom xaare àjjana firdawsi di nuyu mafia Talla Diop yëpp suma grand frère yi ñoom daa ñoom armée gars yi may àndal di entraînement nuyu naa leen ak may àndal di ma jàppale aw ma seen fay. Euh, démb ñu ci bàyyi sax euh, yëguñu woon lutte lutte simple bi ñii ñoo ngi naan am naam amul mais démb ñu ñëw amateurs yi namm làmb mbër yi namm làmb ndax boo xool yi fa nekkul ci ay mbër maanaam bari nañu supporter yi dem nañ ba xajatuñ fa démb bi nga ñëwee dugg si gis amateurs yi gis mbër yi naka nga yëg. waaye sant rek billaay wallaay dañoo ñëw ci làmb ji vraiment. waaw ñun ñii sax balaa amateur yi ñun ñoo gën a bég ndax li tax ñu bég mooy làmb dafa bokk si ñun du xaalis bi ñu ciy am ak leneen mais dafa dem ba bokk si ñun bu ñu ko deful dañuy am problème dañuy stress ñu ñëw dugg ci làmb ji gis làmb ji sàjji amateur yi wuy si mbër yi ñëw vraiment mu neex trop xam nga ngay dund loo xamante ne yow da nga koo namm war na lii gëj nga koo def quoi vraiment soo ko defee rek sa xol day neex quoi waaw. Euh, damay ñëw ci quelques combats. ndax démb euh, làmb ji neexoon na avant avant ngeen bëre sax yaa Ibou Ndiaye seen xas-xas loo bi kii naan dama koy rey kii naan du kii naan nangam wax ji lan la woon sa diggante ak moom. non Ibou Ndiaye moom moom may fekk rek chaque instant su ma ñëwee ci làmb ji muy wax ak man mais ma pour wax ak Ibou Ndiaye ndax xam naa ne su ma duggee ci làmb ja bu làmb ja doonee 64 litres damay jàpp ni trois yëpp man ñoom laay bàyyi xel. mais xëy na nag moom moo baaxoo làmb ju mu gis général rek jàpp ne général mooy làmbam quoi man nag doxewu ma noonu man képp ku ma fekk ci làmb rek ñu bokk poids lourd jàpp naa ga mais est ce que nekkul moom mu gis na yow ak a tolloo dayoo te yéen ñaar bi day neex ndax bi ma dugg si rek la la joxoñ di wax ay kàddu nga koy joxoñ di wax ay kàddu ñëpp di yuuxu. Mhm, waaw loolu am na moom loolu moom ambianceur la bu duggee ci làmb day neexal mais moom ja li mu jàpp noonu mën naa nekk mais tey képp kuy dund làmb am na adversaire yoo xam ne danga leen di xool xam ni yàgg ñii bu ngeen dajee day neex amateurs yi dañ koy bëgg xëy na moom foofu la tolloon moo tax fu ma fekk ci làmb rek day jéem a yëngal ak yooyu noonu mais loolu du ko ci balaame ko ndax damay xam ni affaire de làmb la. mais combat bi la moo tax mu yàgg ba léegi amul chute combat bi yàgg na bëre bi neex na ñi naan 4 4 am na ñi naan 4 AP amul la moo tax combat bi yàgg. waaw bëre ñaar a koy def ndax boo xoolee man moom amul kuy seetaan général naan général day ñëw ci làmb di taxaw man nag léegi tollatuma foofu ku ma ñëw bëreek yow boo bërewul damay def li ma war a def dootuma jël yenn yenn risques yi ndax làmb dafa nekk suma ginnaaw làmb dafa nekk sama kanam su may soppi nekk suma ginnaaw di ma dooleel kon waratul man may ñëw ci làmb di ko foowee gars yi nag dañoo baaxoo bu ñu ñëwee ci làmb nga di la di la jaxaseeg public bi te duñu bëre des fois da ngay bëre bëre bëre ba ñàkk ñenn ñi duñu comprendre ñenn ñi nag dañ xam ne yow mi yaa bëre ñëw nañ bëre ñaar koy def su ma ko su ma ëppul ëpp ko maa ngi bëre ci kawam nangul bëre après man mooy loolu noonu ah waaw ci biir ba action yi def naa ko fa action boo xamante ne daanu na. captural nañ ma ko wan ma ko fàqat naa ko fu mu ñëw ma plaqué ma ma cabaxal ko mu def kaat appi mais sans boobu xëy na suñu yaram daa tàng moo tax arbitre yi waxuñu dara quoi. Mhm. su ma jógee ci loolu ma gis sa combat yaa ak Toubacouta ngeen bëre nga daan ko nga jàll ko baat na ko acce ci biti. lan la woon dafa am lu ngeen wax loo xamante ni wala boog dafa am baat yoo xamante ni dala koo jël te neexuloo nga daan ko jël bu rëy wax ak moom lan la. non non moom non mu suñoo wax dara waxuma dara dañoo bëre rek dafa ma doon waaxu noonu ma daan ko mais dañoo bëre ma daan ko ba pare mu jëfanduwaat ci kaw sama kaw. ma ne ko bàyyi ma daanu nga ma moom moment boobu na gëmul ni daan na quoi mu jàppaat ma ci laa ko ne bàyyi ma demal daanu nga waaw mais waxuma ko pour dara ndax champion la quoi vraiment. Mhm. su ma ñëwee sa combat yaag booy fay nekk na combat boo xam ne bu neex la wër nga ko ndomb moom wëraat na la ndomb ngeen bëre combat bu neex boo xam te amateur dañ leen bàyyi xel bu baax a baax. Euh, moment bi mu la wëyee ndomb lu tax nga génn saako yi. waaw li tax ma génn saako yi mooy damaa taxoon ay téere loxo yoo xamante ne ay buum la moom arbitre dana piri bi rek mu jafandu ci téere yooyu nag dem ba téere yooyu di ma gaañ ci la ma waree nomba instant boobu aw ma pour def dara man comme jekkuma ma te dafa baaxoo boo ci nekkee te jekkoo fexe la génn defaru ba jekk soog a ñëwaat ci laa fexe mu war ma nomba noonu ma fexe ba génn arbitre bi sifflé ma tekkiwaat samay téere mun a ñëw jëflante ak moom ba ma tekkiwaat rek samay téere ñëw ci laa ko jàppaat bëriloo ko dawaat wër ko nomba moom mais man ba ma ko waree nomba dama yaakaar ne na ndax def na kaat appui arbitre di newaat bëre bëre ma téye ko moom it mu génnaat saako yi ci la ñu woowaatee. mais bi nga ko wëree ndomb moment bi ngeen demee ci nit ñi euh, arbitre bi àtte wala da ngeen dal ci kaw nit ñi moo tax ngeen tas lamb. ba ma ko wëree ndomb dañoo dafa rëpp man ma bàyyi arbitre gars yi ne bëre bëre arbitre bi ne bëre bëre jël amul ma dawaat jàpp ko léegi nag ba ma ko dawaatee jàpp nit ñi ñëwuñu de mais moom moo génn saako yi waaw moom moo génn waa ok nga daan ko parce que bu ñu xoolee euh, depuis huitième de finale maanaam ñi ñu doon gën a bàyyi xel euh, ci tournoi bi yow ak ñoom yéen a tase nga daan leen affaire bi compétition la wala euh, ndam ñi loo àndaale la dañ la ko déy ne la demal nga andi ko ñëw wala naka la demee. non compétition la yaakaar naa ne fan yii ma doon dégg ay Casamance ak ay Gambek affaire yooyu noonu ko te bu dul loolu sax ñun chaque jour ñu ngi entraînement xaar ñu kenn ci lenn ndax ko opté ba leneen lu dul làmb kon bu làmb amee rek ñu bëri même bu ma ñëwul sax dañ ma fay xaaree kon saa su ne rek war naa cee nekk bu làmb amee rek fekk man ma pare. Mhm, waaw ñu dem ba ci digg làmb ji ñu jékki-jékki ay franc dugg si ay góor a soog ay sele jékki-jékki kii bàkku fii kii bàkku fee. amateurs yi daw dugg supporters yi daw dugg jékki-jékki ak làmb bi toj. moment boobu euh, ngeen war a ba demi-finale ñu jékki-jékki yooyu am ci bi loolu amee ñëpp daw daw toj ñi gàddu saisi ñi gàddu seen i caméra daw moment boobu lan nga yëg en tant que nga war nga nga reyante ba yegg demi-finale boobu naka nga yëg. non li ma yëg mooy am na ci loo xamante ne du waree fu mbër pour man. tey jii mbër boo ñëwee pour yëngal am na noo war a yëngalee mais làmb joo xam ne ku ne gis na situation bi mboolo bi fa nekk musul ñëw musul wàcc gaal gi mbooloo boobu mosul waa ci adresse Senghor mbooloo mu bëri ñëw ci làmb ji ñuy tëkkonte ba nara yàq làmb ji waxuma la sax yàq làmb ji mais siège yi fa toj alalu promoteur bi ñu fa yàq mënuñoo xam nu mu bu buñ ñementee nañ ñëw man li may wax mooy mbër amul daje di tëkkonte ñaar ya xam nga yooyu man affaire affaire ragal laa ko jàppee boo paree pour tëkkonte da ngay ñëw ci làmb ji si meeku takk sa ngeen bu bëree def ni say morom comprendre nga mais xam nga gars yi da ngay reeba tas quoi mais nag sëñ Fallou dañ leen di. comprendre dama la gis dama la gis moment boobu noonu bi loolu jàllee euh, nga nga nga ñu defaraat enceinte bi ba mu xaw a yem nga nga nga nga mel ni ku mer. nga mel ku mel jëmale ko ci ñoom parce que dégg naa ci ay kàddu sox yoo jot wax jëmale ci ñoom moment boobu da nga meroon wala li ñuy def ñoom moo la neexul wala boog bu ñu bëggee wane seen bopp wala wane seen doole da nga bëggoon ñu ñëw sumeeku jëflante comme yéen. waaw bu ñu ko defoon sumeeku ñëw dina neex waa mais defuñu ko man dañ maa fekk sama cumukaay jaxase ko mbooloo mi yëpp ñëw dal suñu kaw ba jot ma faa gaañ imaginel bu ñu ma fa gaañoon gaañ bu yàqu sama làmb ñoom mën nañ maa faj wala dinañ ma lijjanti kon dafa am moment boo xamante ne da ngay situation làmb bu la wóoree ni fii am na sécurité boo fi yëngalee mun ngeen a yëngal def lu leen neex te coow du am ñu def ko man dama naan dégg ay làmb àll yoo xamante ne ay mbër ñoo koy yàq mbër yi dañuy bàyyi ba làmb ji saaji ñu ñëw dugg fa tëkkonte di xeex ba yàq ay làmb te loolu moo mën a ñàq man dem naa làmb mbur boo xamante ne ñaari mbër ko yàq def noonu dugg fa di tëkkonte ba bay ba fay def ay affaire di koy yàq li koy waral mooy foofu amaana sécurité bi doyul kon dafa am yoo xamante ne mbër moo ko war a jombale boppam man boo gisee say morom ñeme leen bàyyi ba làmb jot nga ñëw si meeku takk sa ngemb boobaa ngay wane sa bopp am déet voilà. ñu gis la final bi yaag Caaka Faye Caaka nekk koo xamante ni naqa naa naqa danaa bëreel naqa dana jëflanteel ndax euh, macha allah toll na ni mbër yi dayoo beeg poids beeg lépp mais ñu gis jël bi ngu ko daan. parce que dañoo dem ba benn moment ñëpp nee nañ général ñàkk na mais ñu jékki-jékki ne général est-ce que luxusul. non luxus bëre la rek ay xale lañ di bëre chaque jour kon tey jii nii jàpp nañ lépp luñ defagul ci làmb rek dafa jotagul mais lépp luy bëre rek war nañ koo mën a def ndax suñu suñu suñu âge may nañu ko li ñuy liggéey may nañu ko suñu kattan may nañu ko comprendre nga. te tamit bëre moom bëre la rek jàppal ni sax xel moom fépp fu la bëre egg war ngaa war mën a bëre quoi te biir bëre la. moom def na action ba yaakaar ne man daanu naa ma ma remplacer ko dóor ko mbot moo tax ba mu jógee dafa jaaxle mais loolu dara làmb la mbot bi moo sori parce que su juumul dem nga ba teg loxo xaw ma dem nga ba teg concu. doog koo yokk loxo laa teg loxo laa teg ba pare man. du si bëri pied gauche laay jiital mais mais pied droite laa ko mbotee nag looloo leen jaaxal quoi mais làmb la rek loolu dara jàpp nañ ni defaguñ dara ndax ay xale lañ suñ avenir mu ngi suñu kanam te jàpp nañ ni ba tey dañuy jàng quoi. mais démb bi ngay simee ko ñëpp dañ ne général poids bi dafa bari ñu bari loolu la ñu wax ne général dafa diis général pois bi dafa bari est-ce que poids bi ñuy wax dafa bari wala da nga diis est-ce que yaa ngi koy yëg wala yaa ngi koy sentir. waaw dama mënoon nga maa fekk fu ci làmb ji am na pois boo xam ne boo ko yoree doo mën a yëngal wala bën bëre bi doo ko mën te yaakaar naa seetaan ngeen ma. xale laa maanaam dañuy dañuy liggéey rek dañuy liggéey li ñuy liggéey moo ñuy fay quoi mais yàqul ñu dara ndax li ñuy liggéey terewuñoo bëre terewuñoo def lu ñu war a def dañuy bëre dañuy bàkku dañuy yëngal te am na ñoo xamante ne tey buñ jëlee benn poids bi yooyu yëpp duñ ko mën boo ñëwee ci làmb da leen di yërëm ndax da ngay xam ne ñii duñ mën a jàppante ndax ay poids yi jël wala duñ mën a yëngal ndax poids mais man sama poids empêché wu ma ci dara lépp lu ma bëgg a def koy def quoi ñu gis ne euh, saison bi moom daanaka démb la tijji moom laa moom laa ko mën a waxee euh, démb la première journée Jax teg 2 millions 500. général Malika moo ko jël samedi lamb am na dimanche lamb am na est-ce dafa bëggoon ubbeeku wane ne yegsi naa wala boog day pare pour ko ndax su ma juumul am nga combat arène est-ce que da ngay da ngay continuer di di di ci mbapat yi boog da nga doon ñëw noonu pour wane sa bopp après delluwaat pour wane compétir rek. non man man moom maa ngi ci làmb ndax boo xoolee même bu dul combat arène sax man damay compétir maanaam làmb moo nekk suñu xol ba saa bu amee bu ñuy ñëw sax duñ ko tey suñ bopp tey pour demaat toog non jàpp nañ ni defaguñ dara suba suba suba suba suba bu lam amoon dañuy demaat bëre mais actuellement nii dama am na combat Casamance. combat Casamance te dama faa war a dem bëre ci kàttanu yàlla quoi vraiment. Mm-hmm. am combat Casamance mbapat la wala combat boo xamante ni benn combat. waaw mbapat la benn combat combat nommé la. combat nommé la waaw. ki ñuy wax benn mbër Gambien bu ñuy wax Wimpi quoi Wimpi ah day laaj day laaj day laaj préparation bu doy wala ngay dem foofu préparé ba làmb ji jot nga doo ko ñëw wala fii nga koy préparé. non commencé woon naa maa ngi woon ci préparation yi sax xam naa damay xaar rek bis bi di waaj jot nii ma ma dugg dem bëre ji quoi waaw. Euh, lan ngay wax ñi nga xamante ni ñooy bëggee général ak lan ngay wax ñi nga xamante ni ñooy fans général. waaw di leen kontaanee rek di leen wax ni sànq ba tey suma téléphone xam nga gars yi ñu may woowee fu ne ndax xam nga nit ñu nit ñu soppee ak nit ñuy bàyyee xel surtout sama gars yi nekk si diaspora bi aw ma seen fay tey suma ma comee Modou fajar la ma yee billaay wallaay di ma xamal ni waaw damaa kontaan te ne yii dañuy waxtaan mu naa ma gaañ itali dañ ñëw tëjaat mooy loolu noonu mais yëg naa ne tey xolam neex na ko quoi ndax yeewu na fajar gi gis ñu suñu combat yeeg yooyu noonu xam ni kat mooy loolu noonu day fàtte lu bëri quoi ñooñu aw ma seen fay képp kuy suma xarit nekk si diaspora bi ñoom Edu xam nga. mafia Italie bi Modou xam nga sama gars yi ñoom Ahmed Fall Zungule gars yi nekk Europe bi yëpp di ma bëggee mënumaa lim ku lim da ngay juum ñëpp maa ngi leen di bëggee di leen jox seen waa ci waay su ma waa koñ moom aw ma seen fay waa maleka vraiment dañ may taxaw di ma jàppale ak waa benn barak bi yëmbal Kër Massar waa Boune xam nga waa Alba Niakh waa Montagne waa Mbëbës waa Kër Massar cité pénitence aw ma seen fay démb li may bëre donte sax mbapat la dafa am samay xarit yoo xam Kër Massar lañ jógee uniquement ñëw pour seetaan si mbapat bi dama leen sax mujjee yërëm làmb ji jeex na ñu ne ma ñoom duñ ñibbi tant que man jëluma oto ñibbi ba pare barki yeneen bi te loolu noonu dafa rëy kon ñooñu aw seen fay yàlla na leen yàlla même seen fay yàlla na leen suñu borom fay ak tamit di profité ci occasion bi di nuyu suñu xarit Talla Diop fi nga jugul sax matinal wala contact ñu day xuloog ñun ñu waxee mën nañu mbër contact mbër nangam comprendre nga ndax xam na fi làmb toll ak ñun fi ñu toll ci làmb moo tax chaque jour bu ñu toogee sax bañ a bëree day tàq suñu kaw non non faaw ñu entraînement des fois gars yi na ko sëñ bi gars amuñu combat ma dinaa luy bëri mu ne ñu moo ñu war bu làmb ji ubbee ngeen xam ne liggéey day fay te vraiment rëccuwuñu ko ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax Talla Diop mention mention spéciale moom magam Mbaye Diop amuñu seen fay ak suñu grand Mbaye Diallo Assane Salimo ñoom daa grand yi nekk suñu ginnaaw duñ doole lépp aw ma seen fay suma xarit yi may àndal nag mention spéciale li tax mention spéciale mooy at lañ toog bëréwuñu le 21 mars bii nii nii nii nii nii nii ma doon bëre barki démb daaw moom laa ko waroon bëre sama combat arène daaw moom laa waroon bëre le 14 mars gars yi arrêté programme yi imaginel depuis daaw ren mbër moo xamante ne yow làmb nga yaakaar sa famille ci yow lañ yaakaar xam nga nga toog bëre woo dafa metti mais suma gars yi seetaanuñ ma saa su ne ñu ngi toog ak man di ma encouragé di jël seen alal di ko bokk ak man ba affaire yi li muy métti métti métti métti lu ci bëri ñun yëguñu ko. kon aw ma ñu dul ñoom suma gars yi encore une fois sant naa leen gërëm naa leen ndax wane ngeen di général seen frère la dooy affaire de mbër ngeen ko jàppee quoi ak affaire de làmb. da ngeen maa bëgg te yàlla tax loolu ngeen ma bëggee te yàlla tax nag yàlla mi am seen fay yàlla leen yàlla fay loolu laa leen di ñaanal ma seen fay benn yoon ku ci mel ni ñoom Diall xam nga papa ñoom Tafa Soumaré seeni Sona Cheikh Tidiane Mané xam nga ñoom Pa As ñoom Pape Jonn xam nga booy yi may àndal yëpp ñoom Mamoussa gaa yëpp daal sama mafia ma seen fay comprendre nga ak suma benn xarit boo xamante ne vidéo vidéo station Pikine la nekk mais day xuloo ba damay sax ruus des fois sama gaa yi ñëw sa copain fee lay nekk lu waaye wax mu ne la général barki yeneen tibit non kooku moom suma deret la kooku moom laay tëjee li sax ma koy tëjee mooy ku ne xam na moment bi ci situation yu mu nekk te boo ko gisee sax da ngay fàttali ni Boy Malika nekkul ci dara boo ko waxee mu ne la booy dund ak dee la suñ borom sàkk lii bu dee moom yóbbu sama bakkan amaana dama ciy dem. ñu bari ñu bari nee nañ est-ce que du kii moom lañ doon wax moom mu la bal bi dugg. barki alxuraanul karim moom lañ dóor bal moom mooy ki feebar tey bu ko fi affaire yi daanaloon léegi-léegi nga ne maare day taal mais nag sant yàlla. ndax tey jii nii moom heure bi doon na ko fekk muy tax ngemb di compétir bu demee ba instant bi mënul compétir di ànd ak ñun di dégager SRM sam ci làmb loolu ak sant la ndax am na ñoo xamante ne làmb leen di bégal moom danga koy wax mu ne la même bu doon damay dee sax làmb am damay dem kooku loo ci mën ndax ci deretam la nekk kon nag di wax gars yi nañ ma ko gën a ñaanalal di woo tamit bonne volonté yi ñu jàppaleel ma ko jël na ay garabam mu ngi tane mu ngi sant yàlla mais ba tey bal bi mu ngi ci biir yaramam booy comprendre nga ndax dafa metti jeune la avenir la li ñuy def dàqu ñu ko ko bu dee doole it ëpp ñu ko ko ndax ñun dañuy toll moment combat yoo xamante ne barki yeneen bi moo ñu may contact ba ñun su dul moom duñ ci yëg suñ bopp comprendre nga kon kooku noonu tey jii bu amee lu ko dar rek dañ ci day gisee ci ñun ndax dañuy soxla ku mel ni moom te buñ ko amul it waaw dañuy marqué daal vraiment di ko ñaanal jàmm bu baax a baax a baax a baax a baax armée moom it aw ma fayam fu am combat ànd ak man. fu ñu ne général nii mu bàyyi léppam du xool ndax day def dara wala ay ñii dañ koo soxla noonu bu sax bu ay mboqam sax soxla woon maam sama bés day bàyyi lépp ànd ak man kon kooku aw ma fayam armée yàlla na ko suñu borom defal jàmm bu baax a baax a baax a baax a baax ndax yëg naa ni suma nit la ma gaay yi ñoom àbbandoo yi ñoom Saalum xam nga ñoom Papa Dia ah jazz ñu ngi lay béggee bu wér a wér moom it xam nga seetaanul benn yoon ñoom ndeer mafia bi xam nga gars yi ñu àndal yëpp di mat naa la ñoom mbiidu suma benn grand mbiidu yëmbal lay jógee moom it xoolal di bàyyi yiteem yëpp ndax ñun barki yeneen bi mu njaay moom mention spéciale kooku moo tax instant bi ma oto fu ma war a dem oto fu mu gën a rafetee la may jox ne ma mbër demal barki yenent bi moo njaay ah maa ngi lay béggee bu wér a wér a wér naan la xam nga li nga bëgg ci wàllu mécanique yaa ko xam yàlla na ko suñu borom defal comprendre nga ndax nit ku baax nga nit ku yaatu nga nit ku ñaax ñaan nga képp ku may béggee maa ngi lay béggee waa Badiana dañ may jàppale te awma seen fay falaay waajal ni di wax yàlla seen jàmm yàgg waa Bignona waa Bayla waa Jiñaaki awma seen fay waa Jaxaaw Sine nag moom mention spéciale ndax foofu laa débuté ci mbapat te vraiment dañ maa jàppale aw ma seen fay Abdou bu maraneem maa ngi koy sant bu baax a baax ma ngi ñoom Ibou Diop booy maraneem yëpp maa ngi leen di sant ndax aw ma seen fay quoi vraiment di ñaanal Sénégal yëpp jàmm di wax yàlla na jàmm yàgg ndax lii yëpp ci la jàmm xaj lii am lépp jàmm ko waral amaana bu fekkoon heure bi ñuy wax ay yeneen ay li am du am te xoolal lu toll ni weekend dimanche nga gis ñëpp ñëw sañ sa ba jekk ñu ne kuy ñëw na nga indaale sa masque da ngay xool tribune bi gis ni amateur yi toogee ak seen masque mu rafet torop comprendre nga mu war ni ñun lii lañ xam làmb suñu culture la ba pare ñun ñu xam ne suñu culture la kon ngala état bi nañ ñu jàppale ci li ñu bëgg amaana mënoon nañoo dem xooli leneen wala ñu defi leneen mais ñun lii lañ gëm lii lañu visé nañ ñu ci jàppale te xam ne tey jii nii ay ndaw lañ bu ñu am lépp lu ñu am ci alal suñu réew lañ koy servir quoi ñun duñu am alal dem Europe di fay kër ñun duñu am alal dem yóbbu suñu njaboot Europe tëdd fa fii mbër bu fi am. sa réew ngay ñëw investir sa dëkk nga koy vivre lekk ko fi comprendre nga kon nag nañ ñu bàyyi xel bu baax a baax quoi vraiment. gis ngeen nañ ñu bàyyi xel bu baax a baax kàddu yi na li may wax chaque jour rek làmb mooy moom la ñu bëgg moom la jeunesse bi bëgg moom la mbër yi bëgg ba tax na li xew démb ku ne gis na ko di ñaan yàlla yeneen bis yi nga xamante ni mooy ñëw wala yeneen euh, journée yi nga xamante ni mooy ñëw bu na na mel ni bii wala mu dàq ko bokk ndax. démb daal xolu amateur yi sedd nañ mbër yi nga xamante ni teel nañoo toog sax seen xol sedd na ndax dund nañ tuuti ambiance jot nañoo fàtte lu bëri bëri di leen jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal sama cameraman bi Adama di jaajëfal ki nga xamante ni mooy général Malika ak ñu fi teew ñëpp di leen dig daje ba beneen yoon incha allah.